bi tey est-ce que vous à votre niveau nekkul côté boobu noonu ngeen war a gën a mën a appuyer tey pour que euh, ces Sénégalais là puissent vous rejoindre par rapport ak loolu noonu loolu l'autre chose moom mooy euh, comité de gestion ngeen actuellement donc euh, est-ce que tey yéen a ngi dans les plans yi nga xam ne di ngeen samp tey une fédération boo xam ne tey bu ñuy génn tey les budgets au niveau du ministère ak état ñu mën leen tey réserver une part boo xamant ne tey di ngeen mën a dem ak tey beaucoup d'indépendance par rapport aux différentes activités yi diir bi dafa gàtt muy deux ans yaa ngi koy wax. voilà donc euh, par rapport ak fas yi donc ñun li ñuy def mooy li nga xam ne mooy amélioration génétique. Mhm. maanaam dañoo jël benn euh, wajan fii suñu réew ñu croisé ko ak pur sang boo xam ne dañ ko importé euh, ci réewu tubaab yow. voilà donc boo xoolee fii au niveau des haras on a des pur sang de groupe 1 yoo xamante ne nii état yi ñoo leen importé. Mhm. indi leen ñu leen di croisé. ak li nga xamante ne nii mooy suñu fas yi donc dem nañ ba benn instant dañ toll nañ fu kawe ci côté génétique mhm. voilà parce que dem nañ ba xam am li nga xamante ne nii mooy pur sang né élevé au Sénégal suivant li nga xamante ne nii mooy amélioration génétique boobu noonu